wàllu sàngara bi dama waatal ci yàlla maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ni ki li nga ma ko te mu bëgg a bàyyi sàngara keroog bu fi xëysee ba balaa moo jóge ci biir néeg bi mu bàyyi sàngara ci kattanu yàlla ci amul gannaaw suba amul suba tey tey tey tey tey boo ko indee tey tey tey mu bàyyi sàngara asalaamaaleykum waa àdduna asalaamualeykum waa senegal ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi suivre chaîne bii di lu xew TV donc di nuy internet yëpp di leen remercier bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla aussi def jàmm ci àdduna bépp di dellu encore une fois di leen remercier parce que gis nañ seen participation ci suñuy analyse yi ñuy def gis nañ réaction yi am na lu bëri duñ ci jànge ñu ngi ciy tenir en compte bu baax. parce que man li ma jàpp mooy tey li ñuy def nii échange la dañuy gis suñu point de vue ñu partager ko ak nit ñi ñu mën ci waxtaan tiire ci ay leçons ndax mu mën ñu jëriñ ëllëg dans la vie. donc c'est ça le but principal de nos analyses. alors ñu ngi remercier ñëpp ñi nga xam ni si joxe nañ ci seen avis. donc bu ñu jógee ci lool ñu ñëw tey ci li nga xam ni si moo war vidéo bi toujours ñu ngi resté ci seen série bi ñuy wax maîtresse d'un homme marié. alors tey épisode 14 bi ñu ko seetaanee. dañ ci noté ay points yoo xam te ne tey jàpp nañu ay points yu am solo la bi ci jiitu mooy vol des enfants sàcc bi ñuy sàcc xale yi te ku seetaan série bi tey gis nga ni lancé nañ ci message yu am solo bi ci njëkk ñi ngi wax ak sunu waajur yi wala képp ku yor responsabilité benn xale nga veillé ci moom bu baax a baax a baax surtout xale boo xamante ni si day gën di dem école wala muy gën di dem daara su la ko sojat mayee nga koy yóbbul sa bopp di ko jëlil sa bopp wala su la ko jët gi mayul nga am koo ko booleel mu koy man di yóbbu di ko jëli su ko defee xale bi dina nekk en sécurité te yéen ñi nga xam te ni yéen xale yi ci école ba wala ca daara ja ngeen faral di maytu képp koo xam ne si ñëw na fa rek présenté wu ni xale laay jël si ngeen jox ko xale bi mu yóbbu donc yaakaar naa yooyu buñ ci taxawee di ci veillé bu baax a baax sàcc ki ñuy sàcc xale yi dina wàññeeku lu bëree bëri. te yéen ñi nga xam ne yéenay jëf-jëf ju ñaaw jooju xalaat leen ëllëg ne sunu borom day àtte te bàmmeel xam na lool loo fa def lu baax doo ko fa fekk te loo def lu bon maa ngi fa toog jëla te ñetti fani bàmmeel ku ne dégg na ko kon lu jar a sóoraale la te xam ni ëllëg day am te yow moom di def loolu amaana sax bàyyi nga doom sa kër dem di jël doomu jàmbur imaginer buñ jëloon sa doom ni muy def ci yow xalaatal ni boo jëlee doomu jàmbur noonu lay def ci moom te kenn ku ne war nga bàyyi xel wax ji Emmanuel Kant waxoon te ñu dégg ko ci gémmañu juge Kéba Mbaye ma bàyyi leen ngeen déglu parole yooyu ñu ñëw continuer waxtaan bi Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique ce que serait la vie si chacun faisait comme nous Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'indisciplinés, d'insouciants, d'égoïstes, de fraudeurs. La liste est longue, mais la réponse est une, ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance et à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, évitons de tels comportements. kon yaakaar naa ñun ñëpp ñoo ko déggandoo kenn ku ne war ngay xalaat li ngay def bu ko ñëpp doon def tey àdduna bi nan lay mel loolu am solo la ku xalaat ni tey su ma jëlee doomu jàmbur suba ñu jël sama doom ni muy mel ci man noonu lay mel ci ki ma jël doomam kon doo ko def te alalu àdduna jarul yenn yi parce que fii lay yam fële lu baax rek moom moo la fa mën a jàllale di ñaan nag yàlla nañu yàlla xiir ci lu baax te yàlla may ñu mujj gu rafet donc bu ñu jógee ci point boobu ñu jëm ci beneen point boo xamante ni si série bi également lancé na ko mu nekk message bu am solo mu jëm ci ñi nga xamante ni si ñoom ñooy utiliser alcool maanaam ñi nga xamante ni si ñoom ñooy naan sàngara ñu gis tey naan sàngara fi mu yóbbu biram situation bi mu fekkee créé yépp ci loolu la jóge naan na ba ànd ko sagoom tëdd di nelaw ba waroon jëri doomam jëriyu ko ci la loolu lépp xewe kon foofu ñi ngi jàngale que ni alcool bu ku ci abusé wu mën na la jural loo xam te ni danga koy regretté naam sunu mbokku chrétiens yi seen diine may na leen ko donc loolu duma ci sori parce que maîtriser wu ma seen diine mais li ñu leen mën a conseiller mooy képp koo xam te ni tamit yaa ngi koy utiliser nga bañ ci abusé wu maanaam nga bañ ci jël lu ëpp parce que comme liñ koy waxee rek tout texte est nuisible boo ci jëlee lu ëpp rek mën na la jural ay gàllankoor te mën na la yóbbu ci loo xam ni si danga koy regretté. ñi nga xamante ni nag suñu mbokk jullit lañ di ko def ñu ngi leen di ñaan ñu bàyyi ko parce que loo xamante ni si nii boo ko jëlee mën nga tàggali ko sa sago ba def loo xamante ni si sax après danga koy réccu donc loolu jara bàyyi la. parfois da ngay gis sax nit koo xamante ni da koy utiliser ba pare ne def lu ko neex parce que boobu du ànd ak sagoom su paree ba lim jëloon rees nga gis ko muy réccu am kersa mu xam ni kat man lii ma def nii tey du lu baax. te sëriñ Abdou Lahad Mbacké dafa waxoon ni nit ki looy bañ ñu fekk la ca bàyyil te xam ni lu bono ngoog mais nit ki looy def te bañoo ku la ca fekk jàppal te xam ne lu baax ngoog te fii ku ne xam na ni kuy def lu bon yaa ngi koy jéem a nëbb xam nga ne du lu baax te xam nga ni su baaxoon doo ko nëbb kon looy def te bañ ñu fekk la ca bàyyil loolu baaxul kon foofu je pense que message bi nga xam te ni si moom lañ bëggal naa si foofu mooy képp koo xamante ni yaa ngi abusé wu ci alcool tey mën na la indil ay regret ëllëg alors mieux vaut ñu jéem ko bàyyi te xam ne c'est nuisible te tey képp koo xamante ni si yaa ngi koy utiliser mu dem ba nekk ba nekk benn genre dépendance ci yow soo ko jëlul tu ne seras pas à l'aise jéema la xool ku la ci dimbali ba nga bako soit nga dem hôpital ci médecin yi ñu suivre la soit boo gisee koo xamante ni sëriñ la mën na la cee ñaanal nga ba parce que am na am na fi ay sëriñ yoo xam te ne si dañ la loo xam te ne boo doon tux ak booy naan yëpp da nga koy bàyyi. wàllu sàngara bi dama waatul ci yàlla maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ni ki li nga ma ko te mu bëgg a bàyyi sàngara keroog bu fi xëysee ba balaa moo jóge ci biir néeg bi mu bàyyi sàngara ci kattanu yàlla ci amut gannaaw suba amut suba. tey tey tey tey tey boo ko indee tey tey tey mu bay sàngara kon képp koo xam te ni yaa ngi koy utiliser soo gisee séquence boobu war nga xalaat ni ëllëg mën na ma jural loo xam te ni dinaa ko bëgg a jooy te du ma ko am fu ma ko jooyee kon ñu teel koo bàyyi. kon je pense que message bi ñuy jàllale foofu leer na ci ñu bëri mais toujours dañuy rester ci diggante Jalika ak Biram tey gis nañ après Biram bi mu ñëwee am na ay regret ba sax jooy na et tout c'était émouvant. mais par la suite dañ gis ñu ànd dem resto dund fa ay moment de bonheur c'est ça la vie c'est ça une vie de couple gis nga l'amour ça se vit nit soo nekkee ak moom ngeen di dund mbëggeel dangeen ko war a dund ba xam ne yéen yéen a ngi dund mbëggeel te ñun góor ñu yërëm jigéen parce que li ñuy wax rek jigéen su matoon duñ ko muur jële ko kër papaam di ko indi suñu kër kon jigéen danga ko war a yërëm te nit ki koo yërëmul doo ko mën a yor dañ leen war a suturaal rawatina nag nga am soxna su mel ni Jalika nekk une dame de di liggéey di daan dooleem nekk jàmbaar kon kooku tey yaakaar naa boo ko gërëmul waroo nekk di ko bund donc yéen sama ko góor ñi laay waxal jigéen ñi nañ leen di yërëm di leen suturaal naam des fois erreur mënta ñàkk mais ñu leen di jéggal tey jéllale surtout parce que nit matul bu la sa soxna defee dara man nga bàyyi ba ngeen tëdd ngeen waxtaan ci mu nekk loo xam te ni ci yéen ñaar lay yam ngeen rek la ko mu jeex te ñu wàññi tempérament bu baax a baax parce que bundu xatal jigéen baaxul dóor jigéen également baaxul te yéen jigéen ñi tamit ngeen déggal seen borom kër yi te ngeen góor góorgóorlu bu baax a baax donc ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal àdduna bépp tey loolu moo nekkoon sunu analyse ci série bii di maîtresse d'un homme marié des na yeneen point yu bëri yoo xam te mën nañ ci wax mais comme li ñuy faral di wax rek li duuf ci nag bi yépp xajul ci cin li donc ñi ngi yemale fii suñu analyse ba beneen yoon di leen rappeler encore une fois que analyse yi ñuy def suñuy point de vue yuñ gis la dañ ko bëgg a partager ak yéen képp ku ci am xalaat nga commenter ko ñu waxtaan ci trouver ci ay idées pour mën a avancer dans la vie loolu moo nekk sunu but principal waxtaan génn ci ay idée kenn ku ne mën ci jariñu mais lépp ñu teg ko ci respect wax ji ñu fi wax nag képp koo xam te ni laal na la ñu ngi lay jégalu bu baax lépp lu fi jub ngeen xam ne ndimbalu suñu borom la te lépp loo xam te ni dëng la ngeen xam ne doomu aadama moom matul ñu ngi tuubaat ci jégaluwaat bu baax a baax a baax di remercier ñëpp ñi nga xam te ne ñu ngi ñuy suivre di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci benn analyse merci à tout